nee day wax nag loo xam ni bu ci yoonam nekkulit dégg na ci réew mi ñu ni fekkee ma ci boole ne lii muy bëgg a wax nee defe na ni ñun ñii ñépp jullit lañu wala boog ñun ñépp jullit lañu bëgg a doon yàlla nañ ko yàlla yombalal réew mi yàqu yàqu yi bare na lu nek nak mën naa ñu tankam lu ko ba mu dess alalu yalla diine ku ko laal lu ko laal waruñu xew-xew yu xew ci rew mi barki dem par problème pharmacie gigon ñu banaliser ko mu jall bi ci tegu mooy problème mu école yii dal nag ci kaw population bi ne kii nag ci ñi nekk ci kanamu population bi la bokk lan mooy ci seen réaction ci assemblée ñii bañ ku muuru ñëw ci école bi ñom ñi ngi tak seen croix di dem fune lutax bañu ñu lol way ñepp noppi ci ba ci assemblée ne mënu am wala warula am bok war ngeen ci wax nak ne seen responsabilité la man raa minkum munkaran yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam ku gis lu warul a am wax ci ba mu dañ soo ko mënul wut ca wàll ba mu dañ soo ko mënul jonkonu ko di ñaan yàlla ba mu dañ kenn ñaanul nag kenn waxul waxatuma laak nag di wuti wàll kenn waxul waa xanaa kon léegi kon réew mi laïcité kon léegi mooy lan laïcité amul ci réew mi maanaa daal xamuñu diine maasale rek ban ba noppi nag ni nit ki muuru ci école benn ñaareel mooy école bii ñuy jàngale amul respect ci Sénégal amul considération ci Sénégal ñoom ñoom méthode bi ñuy jàngale jëlewuñ ko ci réew mi te doomi réew mi la ñuy jàngal ko war a wax nag muy yéen administration yéen ñi fi ne bu ngeen waxul surtout nag assemblée ndax assemblée ñoo représenté peuple bi ñoo toogal peuple bi lu metti peuple bi ñoo war a wuti aspirine jox peuple bi ñu naan gouvernement bi mënul décider dara te jaarul ci yéen kon dina gisee leen waxtaan yéen a amee baat ci réew mi ngeen dindi fi loolu exiger leen ñu jëfandikoo laïcité ñépp jàng ci seen yoon bu mu nekk ci ku muuru moom daal na nekk ci ku jàngul waa koo xam ni kii dafa indiscipliné waaye nag kuy jàng di ñëw di fay nañ ko bàyyi mu jàng buñ ko mënul tëj leen école yooyu ndegam peuple bi ngeen fi nekkal tëj leen école yooyu mënuñoo forcer nag benn loi di ko fi tëral mu muy loi ci kaw loi nee waaw ñun buñ leen nangulee laïcité ñu war ñoo mën a nangul xale yu muuru di jàngi dañuy fay ñoom jaaykat rek lañu dañu xam li ñuy jaay ñiy jënd it dañu bëgg xam-xam di fay pour pour jot ci loolu koy jaay nag na nga jàpp ni

yàlla moom diineem lii lépp nattu la nee waxoon na ko rek barki dem ci tabaski ji ma ne leen ñàkk taw bi sanction la bu yàlla di wàcce ci sunu kaw am na ci ñoo xam ne nag dañ caa commenté na mu leen neexe waaye ñooñee di commenté moom mii ñooñee taxu leen woon muy wax moom ñi nga xam ni ñoom la bokkal pas-pas ñoom la doon waxal lii fi xewit wax leen ci wax leen ci wax leen ci dal na ci sa kawa ah? te wóor na la wóoral yàlla ni yow ak keneen ku mën a doon ku fi toogal ma wax ak yow ne tontu bi kat lenn rek la nee na moom Abdoulaye ne mënu la tontu waaye Sidi Bakar nee tontu bi lenn rek la dem assemblée ñu waxtaan jël ay mesures dogal li ñuy dogal benn école bi tëj wala wala ñuy nangu loolu léegi daal fa tabarakallahu réew mi daal am na lu koy metti ñépp xam nañ ko boo ko waxee nag ñu ni wax na lii wax na lële xaste na nii la mel dafa naqari deret tàng bopp lu nekk ñu wax la ko waaye ne moom ku yóbbu saaga ka maam ne yoonam new ci ne ki nga xam ni moom la war a waxal daal dana wax ak moom ne moom bii

nee lay yi nag moom du ci wax nag moom du wax ci lay yi du ci wax waaye nee daf koy log denc ba wax jot nag di farata ma wax ko loolu daal la amoon ci lu muy wax ne kii représentant la bu mag responsable bu mag la ñaari tànk nag la taxawe sëriñ ndakaaru la baat la amee fii fii la affaire bi xewe vice président assemblée nationale la affaire bi xew na wax nañ ko fii wax leen ci ah nee dina ci wax incha allah léegi nag ne moom daal Sidou Bakar ne lool rek la amoon ci lu muy wax

yàlla mën na boppam waaye daal ku seetaan boo dajeeg yàlla ni ko jullit laa mun la lan mooy sa preuve la waaja waxoon rek <laughs> la yonent bi waxoon rek waaja lan mooy sa preuve tabaarakallaahu إلي عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون